waaye lu ko jiitu ku baax kóllëre sëñ Bass Xaadim Awa Ba mi nga xam ni lépp luy baax ci diine ji ak l'islam bi mi ngi koy dox nekk trait d'union ti diggante këri diine yi ba bu xewlee bis bu ne mel nii ñëpp taxaw fi tey ànd ci ak moom di ko ñaane yàlla wér ak gudd fan tayru nag ànd ak ñun ci sëñ ki nga xam mooy sëñ euh, Bass Xaadim Awa Ba muy sunu bunt ci Tuubaa ci ay teraanga yu baax a baax dinaa fi fekk ay xaritam nuyu leen sëñ Moustapha Ndiaye ngi fi Ablaye Diabou Sénico ak xaritam yi fi teew yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen sant ki may dugal nag mooy sëñ si Ahmed Sy bu sëñ Abdou Aziz Malick Dabakh ki nga xam ni woy juram demoon na Touba julli ji jumaa foofa la def declaration bu rëy boo xam ni wane na di diine ji benn la sëñ Abdoulaye Mbacké yàlla yàlla yokk leeram fekk ko fi nga xam ne mooy ay du maand yi fekk ko fi nga xam ne mooy jag saaw seeti ko fa xam ni diine ji benn la jëf jooju mu jëf nag ki nga xam ne mooy sañ Bass Khadim Awa Ba ci tànk yooyu la topp moo tax këri diine yëpp nekk fi tey mi ngi ànd ak sëñ Abdou Aziz Sy bu sëñ Babacar Sy Abdou moom it ànd na ak baayam ñëw kon Sidi Ahmed si ñi ngi lay woo nga ñëw fii yëkkati kàddu yow mi yi am borom jagsaaw yow mi mot li yéeni sëñ Abdou Aziz Malick da baax jëm ci dëkkam bu tedd boobu nga xam maam Sidi Aj Malik mandargaal na ni Daksaaw ku sa aajo faju boo fa demee boo bëggee sa aajo aajo nga dem fa. kon Sidi Ahmed ñu ngi lay woo nga ñëw jël kàddu euh, dila gërëm bu baax di la sant kon defe naa ñu dugal ko. ارعد لطيبة لا طوم سواها ارعد لطيبة لا طم سواها فعصاك أن تحصى برؤية طه إن حب النبي قال طلحمي وإسامي ودم دون ريائي أني عطش المحبة ربي من فيودات قاطم الأولياء الحاج عبد العزيز مالك يعذو لي فاصرف إرانك عني واطلب خير إنني في فناي كل وقت وقت alxaaji Abdoulaye Si Maalik ne Tuuba Tiwaawan Ñaseen ak Jaamal ak Canaba kazaakallaa yéen wa Njaasaan kum ci rek teralal alxaaji Abdoulaye Si Maalik ne Tuuba Tiwaawan Ñaseen ak Jaamal ak Canaba kazaakallaa yéen wa Njaasaan koo ci gis teralal يا ربنا إن الورى تضرعوا لأوليائك معا ليصفعوا تبارك الله باي سيدي بسم الله jërëjëf ñu déglu Serigne Sidi Ahmed Sy أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا حول ولا قوة illa billahi alaliyi alazim bismillahi arrahmani irrahim alhamdulillah walsalatu walsalaamu ala sayidina wa maulana muhammadin alihi wa ashaabihi wa xulaihi wa man wala ayyuha alxuduru alkarim assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ñu ngi ubbi ko turu yàlla subhanahu wa taala di bàkk yàlla di ko kañ delluwaat di ko santati ci xéewal bu rëy bii mu ñu mayati ci mbaaxam ak yërmandeem di ko ñaan mu boole ñu nangul suñu ay cant sant yàlla nag yombul ndax yàlla rekk a xam yàlla subhanahu wa taala doomu aadama al insaanu mahallu nuqsaan dañ ko mooñaale ci njuumte ak matadi ak tële ak manani waaye yooyu ma lim du dab yàlla kon ñu ñaan ko bi mahdi fadlihi wa juudihi wa karami yàlla na ni cas suñu cant yu matadi yooyu yéege ko ci matam defal na ko defal ñu ko nag ci barke bés bu tedd bi bés bu màgg bi lu am solo la ndax yàlla dafa am ay nitam ci lu wér wér ku leen sopp te ak cell te ko dinga nga duggaale ca ngërëm lañu mànge ci seen borom subhanahu wa yàlla nañ ko yàlla boole defal ñu ngi julli ci sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom mi nga xam ne li olof di lépp bu lëg lekkee alum na ko gërëm ma coy ku ne xam ne ni njombar mënul yéeg waaye coy mi yéeg mooy lekk waddal lëg for te mag ñi ñu am fii ci réew mi ñu naan senegal kenn du ñoom wallahi la azim kenn du ñoom njureel taxul ndax njureelu deret naam baax na neex na waaye njureelu pas-pas moo ëpp solo xewandina nag ci jamono ci réew mi ñu naan Sénégal ñi ñu am gannaaw yàlla ak rasulullahi amuñu lu dul ñoom ku jóg tàllal saw làmmiñ di leen taayaan sa bopp ngay taayaan بحرمة وصل من قد وصل وبتركها fasala man qad fasala gis nga jaamu yàlla gu dakkul ak bëgg yàlla gu sax te xorma ko doo am ci yàlla tus loolu la mag ñi rawee ñépp yàlla teggin mooy tax nga am ci moom cër yar mooy tax nga am ci moom cër waaye tàllal saw làmmiñ fekk nitu yàlla bu la deful dara waaye defal na la ndax démb bi muy metti ñoom la woon waaw bi fi kenn nekkul woon ku dul tubaab yi amee pouvoir yi amee ngànnaay yi ame pexe yi amee doole yi lu leen neex def mag ñi lii lañu ñu woon téeméeri per yi saxal kalimatu laa mu illa allah muhammadun rasulullah astaghfirullah allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim ñu bëgg taxaw tey ne defuñu fi tus ñi ko wax ñoo dul tus ñu baal ñu xàq nag ci kàddu googu mag ñi ñooy suñuy symbole mag ñi lañu am tey ak ëllëg lu ñu amul soxlawuñu ko te wala taxsabanna alladina qutilu fi sabilillahi amwaatan bal axyaun inda rabbihim yurzaquun farixina bima aataahum allahu min fadli wa yastabshiruuna billadina lam yalxaqu bihim ba aaya ba jeex mbokk yi nañ delloo siwaat xel yi ñi tax ndalte am ci réew mi ñi tax xéewal am fi ñi tax jàmmu am fi ñi tax bennoo war fi am yàlla la de mais yàlla lu ne am na fu mu koy jaarale fi ko jaarale nag mooy suñu maamu leer yu baax yi yàlla nañu leen yàlla fayal ci barke sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam naruma woon jël kàddu ndax maa ngi toog ak sama kilifa di sëriñ Moustapha Abdoul Lakram te ëttu kër yi benn la nu ñu tërale benn tëralin la sëriñ Mouhamadan bu Cheikh Abdoul Ahad yal nañu yàlla fayal suñu wayjur woowu wax na ko léegi wuutante mënul ñàkk kenn ku taxaw te yéene ba sell rek wuute nga ñëpp wuutu nga ñëpp fa tabaarakallaahu ñu ngi koy nuyu moom sëriñ Moustapha Abdoul Lakram di ko ziyaara bu baax nuyu suñu doomu baay sëriñ cheikh ummi mbàkke bu baay cheikh fadilu radiallahu anhu sëriñ sidi abdul qadir ñu ngi koy nuyu di ko ziyaara fa tabarakallahu sëriñ muhammadan abdul ahad sëriñ abdul ahad bu sëriñ cheikh gaynde fatma ñu ngi koy nuyu di ko ziyaara sëriñ abdul wadud fa tabarakallahu nuyu itam bu baax suñu doomu baay suñu lépp di cheikh Abdul Malik Niass bu suñu way jur suñu sëriñ cheikhul islam saaxibul faydati al uzma xaaji Ibrahima Niass radiallahu anhu alkawlaxi di nuyu bu baax seen naa ko fi sëriñ Ibou Séni Laay bu suñu maam bu di ko ziyaara waaye nuyu nag grand sëriñ da dakaar bu baax a baax Pape Ibrahima Diagne ñu ngi koy nuyu di ko ziyaara bu baax a baax a baax fa tabarakallahu nuyu tamit suñu ay rak ñu ngi leen fi fekk mën naa ci tudd papa Abdoul Aziz Ndiaye bu alxaaji Ale Ndiaye fa tabarakallahu ak ñi nga xamante ni ay délégation lañu teew fi teewin bu rafet Serigne Mouhamadul Bachir Khadim Hawa Ba pare ne leen bés bi fa tabarakallahu ñaanal ñi dem yal na leen yàlla yërëm jéggal leen tabal leen aljanna yi gën a kawe fi may tëje sama kàddu nag mooy jël nuyoo yu tedd ziyaar yu màgg yu ànd ak cofeel teg ko ci délégation bu mag bi nga xam ne suñu kilifa ñun ñëpp di suñu sëriñ cheikh mouhamadinil muntaqa alxalifatul aam li taifati l muridiya yebal na leen fii waaye mbëggam gëm ñun ñëpp moom lañ fi wuutu ak mbokkam yu baax yi mu séq yi mu bokk e, séq ëttu këru diine ji yàlla nañu leen yàlla fayal yàlla dundal leen ndokkeel leen bu baax sëñ Bachir jërëjëf yàlla na la yàlla fay lii mooy suñu ndono lii lañu ñu am leneen lu ñu dañuy sonn rek teewul ak lu baax lu ñu gis nañ ko topp am cofeel ci loolu waaye ndono laa ngi nii yow nag yaa ngi ci ni ko sëriñ Mouhamadan seede léegi mbokkum ñëpp nga soppeeb ñëpp nga xaritu ñëpp nga wollare ñëpp nga loo ne ñu ngi ci ak yow incha allahu taala di la ndokkeel ak njaboot gi yëpp nag di leen ziyaara bés bi màgg na rëy na ci barke cheikh Mouhamadou Lamine Baara barke way juram di maam cheikhul Khadim radiyallahu anhu yal na yàlla dolli jàmm ci réew mi waaye mbokk yi jàmm dañ koy wootal ci wax yiw dox yiw jëflante yiw kàddu yu si des amul solo yàlla na fi yàlla dolli ndalte yal na fi yàlla dolli xéewal yàlla na fi yàlla dolli bennoo ci xol yi bi jaahi saydil wujudi wa alami shuhud sallallahu alayhi wa sallam mbooleem ku fi teew ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara fàttewuñu suñu sang yu jigéen yi toog ci suñu biir ñu di leen bëggewoo di leen sant di leen gërëm di leen ndokkeel